كرامتي قد يدي في قمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم كرامتي قد يدي في قمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم كرامتي قد يدي في قمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee rek ñoo ngi fii ci jaalibatul maraaxib ci guddik mawlud gii nga xamante ni sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Sohaybu mi ngi koy amal tey jii waaye di ko jagleel kenn ci jàmbaari lislaam ji sëriñ Abdou Khadir Mbàkke ñu toog koo xamante ni nag kenn dootu ko présenté ti ci kër sëñ Fall waaye ci kër sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Sohaybu muy sëriñ Bas Mbàkke maraaxib moom sëñ Bas Mbàkke moom sëñ Fallu moom Seexuna Ahmadul Xadim moom nag mu doon koo xamante ni kenn la ci kër gii kër sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Soñ bu waaye lenn rek tey fa suñu blaaj ji jëm ci jëmm ji nga xamante ne tey jii sëriñ Amsatu miina nañ ko liggéey yu mel nii nga xamante ne mi ngi koy defal waajuram yu tedd yooyu moo xam ma màggalug sëriñ Fàllu lay doon wala màggalug sëriñ Abdul Ahad tey jii sëriñ bi ñëw defal ko sëriñ Abdou Khader Mbàkke te sëriñ Abdou Khader doon koo xamante ne lislaam kenn dootu ko fàtteeti ci yoonu lislaam rawatina yoonu murit lan ngay baaxee bokk taalibe yi nga xamante ne ñoom ñoo janook ñun fenn fu nekk ci àdduna bi te bëgg a jariñu lenn rek ci sëriñ Abdou Khader Mbacke. asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñoo ngi sant Cheikh Ahmadul Khadim bu baax cant xol gu biir di ko seereel waa adduna bépp ci dimbale gim ñu dimbale ba baaxee ñu boole ñu ci liggéey bii nga xam ne. sunu jëwriñ jii di sëriñ Xamsatu moo nekk ci bopp bi di ñaan ci barke Cheikh Ahmadul Xadim sunu borom kattanal ko kattanu biir ak bopp bitti yokk aw fanam te ko ba mu àggale liggéey bi fu kawe njortam barke xasida yi sëriñ Tuubaa yi di njëlbeenal sunuy wax ci ñaanal sunu kilifa sunu sunum sëriñ Tuubaa ci kaw suuf tamat ku sëkk cheikh Mouhamadul Mountakha xafidahu llaahu wa raahu ci barkeb cheikh Ahmadul Xadim moo képp kum àndal liggéeyu Serigne Touba bi ak ñi am yéene ànd ak moom ñëpp njabootu Serigne Touba gépp di sant suñu boroom rek ci liggéey bii ak liggéey ya weesu woon. ak yii ñëw yépp ñu ngi ciy sant suñu borom bu baax am naa yaakaar ci yaakaar ju ju ju wóor wóor sax ci ne benn ci liggéey yi bu mel nii benn ci rek benn ci ku ko mas a fekkee ku ne. waxuma jàpp ca waaye teewee liggéey ba rek donte benn la benn la mas a doon sikkuma sàkkan dab nga ca ngërëmul sunu borom loo xam ne mënoo ko woon a amee ci lu dul mel nii rawatina nag ku ko dëkke ku ko dëkkee teewee kon alhamdulilahi rabbil alamin sant war nañu bu baax a baax a baax ñoo ngi sant suñu borom bu baax te di ko seeral adduna bépp. Euh, Cheikh Abdoul Khadir nag. moom doy na waar. bu dee ku mel ne man xam naa dana ci euh, xaw a doy waar nga man ci seere. ndax dafa man lépp Sëriñ Tuubaa laa bëgg. lépp Sëriñ Tuubaa fonk. waaye Cheikh Abdoul Khadir tamit day day day day loo xam ne ci man ci sama yëg-yëgu bopp. yëg-yëg bi ma ci bi ci njëkk am rek ci ci ci ci ba ma xamagut ku mu doon. xaw boobu xaw ko sax ba léegi waaye ba ma xamagut ne euh, Cheikh Abdoul Khadir dëgg dëgg cafka gi mu am. booba maa ngi daara ja di jàng alxuraan euh, ci sama bëgg ko man bëgg bëgg goo xam ne amut amut ay la amut amut amut dara la ko waral daanaa daanaa fàttaliku ne daana yorpot di yalwaan waaye bëgg jëmmi sëñ Abdou Khadir jëmm ji rek jëmm ji képp daana ma jaral yalwaani añ eh, ba tàkkusaan ma dem ca këram gi ci jumaa ji toog ci buntu jàkka ja ngir bu ta bu nu jullee tàkkusaan mm, bu bu bu bu génnee buy dugg di jiite ma séen ko su ma ko séenee damay jimbi ndax bëgg yàlla mu amul xam ne ne bëgg xol gu ma ko bëgg koo xam ne jéggi na dayoo eh, loolu ma sant ko suñu borom bu baax a baax loolu moo yóbbu ci Euh, yu bare bare yoo xam ne maa ngi koy dundandoog ay nit te jëme ko ci moom jëmmam ju tedd jooju yi euh, maa ngi maa ngi fàttaliku bis boo xam ne maa ngi koy laaj sama waajur di ko wax naan ko euh, sama sama turu Mouhamadul Bachir wii nga ma tudde ñu tudde la sëñ Bachir nga ni ma ko tuddewaat mu ne ma yow sëñ Abdou Khadir moo la tudd moo la tànnal sëñ Bachir ma ne ko alhamdulilah rabbil alamin kon damaa yaakaar ne xëy na. ba neexit woowee moo moo ruusaat moo royaat ba nëgg ni ba ci bëgg googa ci maanaam moo wéy ba ba fi ñu toggul fi nii muy koo xam ne euh, adduna bépp amel nañ ko njukkal adduna bépp waxuma waxuma murit waxuma jullit waaye adduna bépp amel nañ ko njukkal ndax lim làmboon ci yërmande suñu borom bokkoon na ci ñu dogal ci moom njawul suñu Tuubaa gépp waaye moom bokkoon na ci ñi nga xam ne Euh, lu bëtam ma sa tege wala lu am noppam ma sa dégg wala lu aw làmmiñam ma sa tuddu faw nam ko dégg non lay demee bu fekkee dafa ma sa dégg ku ne sàkkul ak njëgal donte ku du du ab sax suñu borom sukkandi ko ci dégg ngi ko dégg jégal ko man na ci joxe ay yu leer nañ xamna donte du rajo bokkon na ci yit ñi nga xamné ne lu ëpp bëtam ma sa tege yërmande jël bay andal ci zahir képp loolee suñu borom dana ca dana ca tàbbal yërmande joo xam ne ku ko toppoon ba ca ëllëg doo gis ci moom daray daray coono du topp ci moom bokkoon na ci ñi nga xam ne it aw làmmiñam lu mës a tudd lu mën a doon suñ borom dana ca laaf yërmande ca loola ba faw yërmande ji jóge ca làmmiñ day day law royaat ca wax ja ba ba jëm ca loola donte donte donte du maar la yëm si du ko du ko doon topp suñu borom sax loolu la suñu borom dogaloon ci moom euh, ci léppam nag ci léppam euh, loolu wax waxo waxo mas na mas na maa dégg ci li ma wax léegi nii rek ngir firnde ji ku ko jege daan moom mas li bis ne ma fekk ma doon ko laaj ci sëñ du yu bari mu ne ma ma daal ni ko lu lu bokkoon na ci li ma daan seetlu ci moom mooy ñu ñu bare bare ñu fi bàyyi ko taamu mu julle leen mu ne ma kooka ne ma mas na maa dégg moom mu am ko mu laaj ne da koo gëj a gis ne dafay xam naa ko fa daan ñëw la mel na dañ ko wax ne ko moom di daa mel ne xaw naa bàyyi ko ko woon na fi ne ne waaw nee mu daal di wax ne inna lillahi wa inna moom di yëguma ko xam naa ñu xaw a kii mu daal wax ne nee na mu daal wax ne yu mel noonu mat na ma yëgal ndax ñaari kun ci yëg kun ci yëg suñu borom du ko topp dara <laughs> waaw mooy firnde li ma doon wax léegi daal lu mel noonu mat nañu yëgal ndax ñaare kun ci yëg suñu borom du ko topp dara ku mel noonee nag ku ko am suñu borom defal la tawféexi euh, ngay mën a def liggéey bu mel nii euh, di ko ko jagleel sant war na la bu baax a baax a baax kon alhamdulilahi rabbil alamin yàlla ñu ko suñu borom fayal barkeb Cheikh Ahmadul Xadim euh, mat na ko sëkk leneen li ci desit mooy ki nga xam ne moo jiite liggéey bi di sunu sëriñ di sunu jëwriñ di sunu wayjur di sunu xarit di sunu wéttalu xol lépp ci lépp te doon ko ci murit yëpp boole ci ak képp ku bëgg lu baax ci àdduna muy sëriñ Hamzatou mii liggéey bii nga xam ne liggéey bii nga xam ne mi ngi koy def nii euh, te dëkki ko daa iman euh, njëlbee njël njëlbee na ko di ko di ko di ko di ko jiital ci képp koo xam ne ku ku tudd tudd Sëñ Tuubaa waxuma doom ki li ñuy tudd doom waxuma waxuma euh, sët wala waaye képp ku ñuy tudd tudd Sëñ Tuubaa tam masa jaar ci liggéeyu Sëñ tubaal lu néew néew jagleel na ko liggéey bu mel nii boo xam ne ba mu koy tàmbali ñu bari ci ñiy teewee mbooloo mi jataay bi ñu bari ñëwagun ci jamono kon waaw ba mu koy tàmbalee lu ñu bëree bëri xam naa ñu ba am am na ñu ump am na ñu ko xam waaye am na ñu ump ba mu koy tàmbalee bare na ñoo xam ne ñëwagul jamono ci ñi ko teewee nii fi mu nekk nii ba bisub tey bii te dakkagut dakkaligu ko te yàlla na yéex a dakk lool te yaakaaru mu dakk sax waaye yàlla na wéy lu yàgg a yàgg yàgg yàgg yàgg barke Cheikhul Khadim ñu di ko mu dimbali ñu ban ba ba ci mbaaxu Sëñ ban di ko ànd ak moom kon yéene nañu ndimbal yéene nañu pajuk aajo yéene ñu defar tey ëllëg kon alhamdulilah rabbil aalamiina lim yéene lépp ci taalibe yi ak jullit ñi yàlla ko Sëñ Tuubaa far ci yéeneem jooju defal ko ci lu koy njortam barke Cheikh na seex bu ñu Xaadim Cheikh eh, Bass ci tënk bu gàtt rek guddi yi eh, lan la ci nit ci mën a jàngatee ci sëriñ bi taxawu gi nga xamante ni mi ngi koy taxawu mu mel ni bëri na ci ñoo xamante ni nga wax léegi say biir wax mu mosuñoo ñëw eh, ci jataay yi waaye ci image rek la ñuy gis jataay yi tax ñu koy roy. ba tax mu doon loo xamante ni day dem ba luy nekk luy sax ci moom day mel ni sax am nga ci firnde ci lu baree bari ñoo xamante ni nekkuñu Sénégal waaye dégg sëriñ bi ak bëgg di roy sëriñ bi saa su day tax ba boo leen fekkee seen i bërëb day mel ni dañoo bokk ak sëriñ Amsatou Mbacké benn keppa eh, loolu eh, am naa ci ay firnde yu baree bare bare ndax li ñuy wax guddi àjjuma guddi àjjuma ne eh, xam naa ñëpp xamoon nañ guddi àjjuma waaye xam ngun xame nii guddi àjjuma moom di ko di ko yëkëti alquran xassida serigne touba ak alquran ak salatu annabi lu mëna doon diko jaglel kenn ku bax ko xamne amna ngeurmul suñu borom ci mom mi lañ ko xamé mom waaw man man bok man ak maak ñu bari ci mom serigne hamzat lañ ko xamé mu law ba daj kap aduna fi nek ni bo démé europe ak afrique gi rew yu bari fu melne amna ci misal mom man la joxe mbiru fir la melne masalan italie guddi aljuma ya nam fa mel fi nek ni mëne su ko wax boo demee Amérique boo demee France yooyu yëpp dama koo teewee man ba tey yu ci bari dama koy teewee ñuy def ay guddi ajuma yoo xam ne nii ko sëñ bi defee lan koy defee te di ko roy ci moom li ma ci gisee te jàngate ko ci mooy maanaam tarbiyatul nafs ak tarbiyatul ruux bi ci nekk te amul àndut ak wax ay wax loolu xasida képp képp képp moo ko mën ci àdduna tërbiye gii nga xam ne nag Seex Ahmadul Xadim da koo jagleel sëriñ Xamsatu jaarale ko ci moom mu di ko def te di ko jaarale loo leloo ci xasida yi euh, tawféex la maanaam jagle ak jagle la ci moom euh, xam naa ne nag euh, donte ñëpp ñu bari bëgg nañ ko waaye ab cërëma moom ab cërëma boo xam ne kenn fekk ko ci yàlla yàgg lool li ma waxoon léegi seetlu naa man ndaw ñu baree bari ñoo xam ne lu ma xam di fii di bitim réew yu baree baree bari yoo xam ne defaroo nan ci gud topp guddi ajuma ñu defaru ci defaru gu wér a wér nga xam ne gis naa ñoo xam ne lu tàmbalee ajjuma ci boppam ñu ngi tàmbalee waxtaane euh, ajjuma jii di ñëw alxames jii di ñëw nu ne nu ne doxale nga xam ne ajjuma gaaw diwéer altine talaata alarba ba al ba alxames ji dugg seen yitte jëpp mooy waxtaane nu nu wallaahi rasim nu nu nu ñuy def ajjuma ji di ñëw kuréel sàngam la ñuy indi nan nan defe nangam diw yaay def nangam nan ko defee béréb sàngam nan ko waxtaane nan bàyyi ba suba ñu tënk ci nga xam ne semaine bépp amuñu jënn yitte ju dut ñooñ da ngay daal xam ne ñoom defaru nañ defaru euh, léegi nafs nga xam ne amatuñ yitte yi dañuy tàggat seen jëmm ci euh, fas yéene waajal nangam nga xam ne bakkan moom dut leen jëmi ci lu dul lii kon boobu loolu mooy tarbiyatu nafs léegi tarbiyatu ruux bi nag mooy yëg-yëgu bànneex neexit amatuñ ko ci lu dul alxames ji jot ak jàmm ban songu liggéey ba neexit wan cay am. moom la mënatu am foofu fenn loolu mooy tarbiyatul ruux loolu la def maanaam defar bakkan bi ba duñ yëgati li tàmbalee àjjuma ba alxames mënuñu mënatuñ cee yëgati ab coono lu dul yàkkamte alxames di ñëw nga xam ne mënatuñoo yëgati dara dara dara lu dul alxames di ñëw. bu alxames jotee neexit wala jëlee ci alxames jëm mënatuñ koo yëgati ci lu dul guddik alxames googu képp guddi maanaam alxames ci guddi rek waaw loolu mooy tarbitu nafs ak tarbitu ruux yëge naa ci ñu baree bari ñoo xam ne defaroon nañ ci loolu gis naa it ci Europe ñoo xam ne melokaan wi meloon eh, yàlla ngi suñu borom umpule ma teewee ko man gis ci ñu bari ñoo xam ne dañ daan dañ daan dem ci yeneen yu wuuteeg yi safaanub lii lii moom mooy mooy mooy bëggu suñu borom waaye safaan safaan ba nag dañ ca daan dem bu daay man am na ca ñoo xam ne mën naa tudd seen tur bu dul woon ab rajo xam leen seen i jëmm mu ñu bari ban demee guddi àjjuma ñaar ñetti yoon ca daan bàyyi mboolem lan daan def dappetoo daa iman nga xam ne dañuy lii dafa suñ ko yéene xam ne àgg nañ ci ñoom donte mënuñoo jàng sax faaw ñu tàngal seen kër café wala ñu dara lu ñuy joxe indaale ko ci guddi guddi alxames guddi ajuma ba doxee ca fas yéene di jàng di fer ijji ba mën a jàng xasida bokk ci ay kuréel ba bokk ci kër yi yëkkati xam naa ci ñu bare baree bari ca bitim réew loolu liggéey la boo xam ne lu dul lu dul lu dul xasida mënu ko te it cër boobu it nag wax dëgg yàlla moom mii di sëriñ Hamza la ko Seexul Xadim jagleel teg ko ci loxoom yàlla na ko yàggeel lool lool tan yàgg ko ànd moom ci barke Seexul Seexul Xadim kon sant nañ ñun ñi sëñ Tuubaa acc accal ban ànd ban fekk ko fi mu nekk ànd ak moom ci liggéey bi sant nañ suñ borom bu baax a baax a baax sant na Seexul Seexul Xadim bu baax a baax a baax yéen it lii lii ngeen di def fi mu ne lii nii daa daa màccaat jëm ci liggéey bi ndax fi ne liggéey bi képp ku ko mën a dégg ba ba ba mën a agsi ba man cee bokk bokk bu dee bu dee téeméer juróom-ñett fukk yëpp yéen ndax bari na ñu ko xamul woon ci yéen leen ko xamee bari na ñu ñu dul dégg wax ji ak di ko duñ ko gis te ci yéen leen koy déggee di ko gisee ci yéen kon def ngeen ci lu baree baree bare bare yàlla na leen Seexuna Seex Ahmadu Xaadim gën a kàttanal ba ngeen àgg foo xam ne am na ñu ngeen bokkal ab liggéey waaye ñey liggéey liggéey euh, safaan bu safaanoog bi suñu yoon nekku fu nag baax na waaye yéen moom ñi ngi yalwaan ci barkeb Cheikh Ahmadou Khadim barkeb xasida yi seen liggéey bii ngeen àgg foo xam ne mbooleem kuy liggéey lu mel ne lii ngeen di liggéey dana leen dégg te dana leen ñee it te du ngeen ñee kenn yéen ci barke Cheikh Cheikh Abdoul Khadim ñu ngi ko yelwaan Sëñ Tuubaa ci ci mbaaxam ak ci barke xasida yi barke Cheikh Mamadou Fadilou Mbacké barke Cheikh Abdoul Khadir Mbacké mii nga xam ne moo tax ñu woote liggéey naa xaw naa xëy na fi ma fekkee ak tolluwaay bi ak ñàkk gee waajal waaye sant nañ sëñ Abdou Khadir day koo xam ne lu ñu ci wax ak sëñ Amsatu ñoom ñaar wax ci daa yomb lu jëkk ñëw ci sa ci lu baax boo ko boo ko waxee moomal leen ko rek dëgg la loolu moom moo tax mu yomb waaw macha allah jërëjëf euh, Serigne Bassirou Mbacke ci kaddu yu matala yooyu mbokk yi euh, comme ni ngeen miinee rek nii rek la ñuy xuus ak yéen lépp loo xamante ne am na ci guddi àjjuma gi rek ñu indil leen ko nees tuut ak suñu yeneen élément wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ساعتي قد يدي في قمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم كرامتي قد يدي في قمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم كرامتي قد يدي في قمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم